su nekkee parce que je pense que parti politique ngay dem mais defuloo politique ni ma la déggee ngay wax defuloo politique politique dafa am ay réalité politique politicien. non non j'ai dit. non non man ak yow yemul conception politique. non non non ah, voilà man comme ça se fait depuis soixante-dix ans. mais non j'ai dit comme moi je la conçois. j'ai dit j'ai dit ça fait deux. j'ai dit non attends attends c'est-à-dire quand on ah. fait de la politique quand on fait de la politique. waxuma la politique l'art de gérer la cité. non mais je pas de la définition étymologique. j'ai on fait de la politique quand on fait de la politique. la conception a de la politique et dafa am loo xamante ne ay règles la ay normes la yu ñu war a tegu en tant que parti politique en tant que entité politique. ñun ñëpp ku nekk acteur politique am am bët di xool xamoon nga ne yeewu askan bii du dem. dem na de yéen yow xaw leen rey nga naan xam nga tax non attends yow ñu dóor la local yi dóor la dóor la législatif je parle de la survie de la structure waxuma la ah non non non non non attends attends parce que Adama non non non attends benn bokk yaakaar li ko dal yeewee ko yóbbee même sax bu ñu amee problème candidat yeewee ko yóbbee ñi ngi nii amuñu candidat xamuñu fu ñu jëm attends c'est-à-dire xam nga nag sànq ba léegi dañuy waxtaan ak xel ah ñun musuñu waxtaan ak xel lañuy waxtaanee nañuy waxtaan ak xel moi je parle de problème de survie d'une coalition. survie kay benn bokk yaakaar la actuellement nii déglu rek ñoom ñooy sukuraat déglu rek ndax amaguñ kaan waaw defal ndànk rek defal ndànk rek la situation bi benn bokk yaakaar toll nii. sukuraat ngeen nekkee. non déglul loolu kuy def politik xam ni tôt ou tard benn noonu kii accès. mais loolu. parce que la choc des ambitions. mais gëmuñu seen bopp. bàyyi ma terminer non attends. c'est-à-dire xam nga la benn waay lañ jox lépp. loolu war a jeex Sénégal Jibril ñu. jibril jeexul Sénégal jibril jibril benn waay ne ko tànnal jibril xam nga man xam nga ma de ma coalition ñeme naa ko wax am naa sañ-sañ bi waaw waaw waaw kon nag di ma bàyyi ma yow dama ne les tares de coalition naa ko wax waaw waaw te du ma ko ragal parce que politique la ñuy wax quoi faxuñu leneen mm-hmm. dafa am loo xamante ni il fa fallait s'attendre ça dans la coalition Benno Bokk Yaakaar mënuloon nekk voilà pëcc xoo bi mm. ñàkk am mm. parce que le choc des ambitions day am ci coalition nit ki lañu amaloon charte ak rendez-vous jeexal na nit ñi dañuy am ay ambition ah déet bu ne woon damay def troisième mandat dama koy def kenn du fa am so kenn du fa ñeme waa déglu waa déet parce que fa j'ai dit jeexal na waaw ah, waay déet j'ai dematul su dematul choc des ambitions day am mais man poser la benn question est normal ah, benn parti au pouvoir. muy mhm. le camp présidentiel. Mhm. mu yor ko deux mandats successifs. waaw ku nekk à la tête de cette coalition en l'occurrence le président ne du ma représenté wu si su fekkee moom jëloon na décision bu yàgg. Hmm. que ni si un an di tànnul benn dauphin wala kenn ku koy kii. ba ba tey xam nga damay grande démocratie. non bu fekkee da ngay jeexal sa mandat. dama lay Youssoufou laa fee Youssoufou rek def na ko. dañuy waxtaan décision du président c'est-à-dire dañuy waxtaan décision assez forte due à la pression populaire. jàmbaar jàmbaar jàmbaar dugg Sénégal dafa am problème. non je ne suis pas dugg Sénégal moo am problème. je ne suis pas dans comme ça j'ai dit. dafa am problème de. j'ai dit j'ai dit. Hmm. il fallait s'attendre à cette situation. ah déedéet il fallait pas. parce que yéen a tax du moment où. ki nga xam ni moom la nit ñi joxoon bopp ne sampatuma sama ndënd. te il l'a fait tardivement. il fallait s'attendre à ça parce que le choc des ambitions day am su ko defoon en deux mille dix neuf le choc des ambitions day am di nga gis nit ñi génn dem am seeni ambition présidentielle te kenn du ko tere nit. comment on peut choisir maintenant bu bàyyi ma terminer rek bàyyi ma terminer rek kenn du ko tere nit kenn du ko tere nit am ambition cest dire mi ngi mel ni yeewi rek les gens am seen i ambition bopp nekk déclarer seen candidature kenn du la ko tere est-ce que tu comprends moo tax ma ne la cette situation de Benno sooy def lecture politique il fallait s'y attendre n'est-ce pas et c'est ça qui fait le charme de la politique avoir une multitude d'ambitions dans une coalition ou bien dans dans dans, dans autre <laughs> maintenant du ma ko bañ su la neexee nga ree lu la neex. man li ma xam mooy. kay aaraba dinaa la ree nga tey xam nga man nag dis nga au niveau de la coalition benn Bokk Yaakaar. waaw yow génnoon nga fi di déconné. non déglu man waxuma la non dama ne man. man benn nit laa doon suivre. waaw pare na. Mhm. amatuma ku may topp. Mhm. j'ai le droit de choisir de dire Ibrahima Cissé yow moom candidat. Mhm. parce que maa tànnoon Macky ne mooy sama candidat. puisque maa tànnoon Macky Sall en 2008. tànn ko bokk ci partem def ko candidat def ko président de la République may tànnaat sama nit ne kii laay def candidat porté ko ànd ak moom wër Sénégal. kon yow bokkoo si ni bu Macky Sall tànnee ñu topp. voilà justement c'était ma question même. j'ai dit déggoo li ma la dama ne bi ma amoon man en 2008 dugg ci biir alliance pour la mhm. toog ñu dem congrès ma mooy sama candidat. Mhm. ànd ak moom Sénégal liberté boobu laa amaat tey ne dinaa tànn sama candidat ànd ak moom dem wër Sénégal jéem ma fexe nu ma ko fale am naa liberté boobu. waaw maintenant c' est pas am parce que maa tànnoon ah. waaw bu ko waaj a. en 2012 en waaw amul kenn ku ma tànnal Macky Sall en 2024 bi amul kenn ku may tànnal kenn man may tànn ki nga xam ni moom laa moom laa jo gis jàpp ni moo ma doy pour yor Sénégal suba. parce que nag ah. non déglu rek déglu rek sëñ bi le choix de candidat à lélection élection présidentielle. Mm-hmm. la dépôt du candidat ni mu personnele et mm-hmm. individuel mm-hmm. noonu la choix à une personne à l'élection présidentielle nekk mm-hmm. nekk personnel et individuel du mbirum collectif parce que ku nekk ak kala donc du man maay toog ne Macky su tànnee borom sabadoor bu rafet bii damay ànd ak moom déedéet moo tax décret lu am solo la non ah ah ah ak am solo xam nga décret nga décret ba décret ba man dara tënku ma man Adama Fall gis nga bës bu président tànnee suba di nga dégg pëccëxoo bu mett suñu biir parti même ci ni ñi nga xam ne am nañ décret parce que liberté nit dangay am liberté par rapport à ce que tu fais li ma jàpp mooy suñu biir coalition bii profil yi les les gens se sont dégagés hein il y a plusieurs maintenant man aadama Fall am naa droit choisir parmi les onze parce que nag. Mm-hmm. Djibril mm-hmm. man ñàkkuma fayda de mm-hmm. j'ai je me suis battu pour quinze ans pour un homme dans un parti politique oui ou non malgré ses résultats malgré ses réalisations n'est-ce pas li ma ñàkk fii duma ko ñàkk ak Ibrahima Cissé parce que fulla la ak fayda la fulla ak fayda te fulla ak fayda boobu man aadama Fall am naa ko taxaw ne Ibrahima Cissé mii moo ma doy te moom laay àndal mais waxtu wax ko jotagul. da ngeen xaar yéen ah, <coughs> même si à quatre-vingt-quinze pour cent jàpp naa ni Ibrahima Cissé lay àndal mais pas kenn du ko jiitu ci mbaram. Mm-hmm. su ma taxawee di yuuxu ne Ibrahima Cissé lay àndal président ne Ibrahima Cissé laa laa tànn nag. mais damay toog déglu ko. d'accord su ne su ne su ne su ne ram su ma su ne mari la ma ne ah mari de ah d'accord naa de président de moo ne mari la euh, jekk na jekk na fulaar jekk na nangam am na xam-xam am na nangam mais doyuma Ibrahima ma doy loolu liberté la. d'accord waaw je vois que ni a ëpp oh, non non non xam nga xam nga lu tax xam nga lu tax xam nga lu tax xam nga lu tax xam nga lu tax xam nga lu tax dañuy politique xam nga lu tax xam nga lu tax nous sommes dans une nouvelle expérience boo xamante ni mosul am ci Sénégal. ces élections là. oui la régie bëggoon naa xam excusez-moi un peu bëggoon naa xam combien de temps il nous reste. la régie nañu doxal. oui nañu doxal. d'accord bu xoolal élections yi. Mhm. yaa ma ko gën a xam da ngay politique. Mhm. ce les élections les plus ouvertes. Mhm, de élection 2024 yi. mooy élection yu gën a ouverte. léegi nag non. waaw non non j'ai dit non non non attends attends. xam nga xam nga non demal naa gis nga Jibril gis nga Jibril gis nga Jibril Jibril Jibril Jibril sëñ bi ah. nous sommes dans un état ah. un état de droit. la validation ou l'invalidation d'une candidature c'est le conseil constitutionnel qui le fait ñun ba ñu taxawee fii 23 juin naan Macky Abdoulaye Wade amul droit non à une troisième candidature conseil constitutionnel moo validé candidature luñ ci mën mm-hmm. luñ ci mën laa la wax mais Macky Sall dafa génn n'a pas dit ça waaw ah, tamit Macky Sall ba ñu ba ñu validé la <laughs> candidature de de du président Abdoulaye Wade ñu ngi woon place de l'Obélisque il nous a donné rendez-vous defal ndànk. non non waxalal Macky lu mu wax dama ne. après que Wade. déedéet déedéet validé sa candidature a quand on a validé sa ñu dajale njaboot gi. Hmm. mais nous devons être légalistes conseil constitutionnel décidé na. c'est au peuple non loolu effectivement dem na élection dem na campagne déglu rek mais le discours qu'il a tenu avant que muy dugg campagne pour. discours ba dafa dal magistrat yi. ban discours. bu mu defee ban. Macky moom booy topp discours am. waaw léegi gars yi jël si réew moom xam la déclaration de ce jour là la sëñ bi sëñ bi bi la déclaration de ce jour là. maa ngi taxaw. non Macky moom ba maa ngi. ko Macky moom boo toppee ay discours opposition <laughs> léegi yóbbu la. dama ne maa ngi déglu lu wax pour moom mënu ma wax lu mu wax. mais ñëpp dégg nañ. non la a écouté. su fi amoon Macky dafa critiquer sévèrement les juges xam nga ni loolu dafa déclaration yooyu amoon déglu rek su déclaration yooyu amoon ñu génneel ñu ko xam nga yan déclaration lañ ñuy génnal ah. on

te reproche la ne grand grand attends c'est ça le problème grand attends ah. est-ce que man su ma ñëwee fekk ci kër gi sama frère rey nit te dara fekk ko ci man damay rey nit dama lay laaj rek. xam nga dama rey nit reconnaissez kon foofu dem. j'ai dit non j'ai dit le président Macky Sall ba muy nekk opposition loolu moo ñëpp laa koy wax tout leader politique. Mm-hmm. sooy nekk opposition. Mm-hmm. ak foo mënti nekk. Mm-hmm. kon woddal kàddu gi bul wax. bul wax bul wax loo xamante ni. wax na fi lu fi Sonko wax fi lu Sonko non sëñ bi situation insurrectionnelle. sëñ bi on avait même nommé le ministre des chargé des insurrectionnels. mu critiqué c' est rien parce que kooku benn kooku yi rek la ko jox mais il dépend <laughs> directement du ministre de l'Intérieur. alors que lui-même en 2009 on lui avait demandé de désigner de nommer une personnalité neutre. neutre politique mu laaj il a refusé ne du ma ko def. je veux dire. les propos le discours qu'il tenait ba muy nekk ci opposition bi honnêtement te yow xam nga ni loolu am. bu nekk mais Macky Sall n'a jamais tenu un propos pour ah. dire que entraîné ngeen ba toll nu leen neex ku leen jox arme ngeen dem xeex n'a jamais dit ça. Macky a dit ses maires. Macky Sall a jamais non Macky a la police municipale est gérée par qui. comme ah. de collectivité territoriale. non mais non la coli la j'ai dit la police municipale. comme de collectivité territoriale. est gérée par le kon nag sëñ bi nañu dem lire code de collectivité territoriale dama ne le président Macky Sall n'a jamais dit ah discours yi Ousmane Sonko tënni il na l'a jamais dit il n'a jamais dit suñu leen joxee arme ngeen dem xeex il n'a jamais dit da ngeen koy génne ci pale bi def ko comme Samuel Doe yow xam nga ni def Samuel Doe non. mais mais mais il faut non damay laaj. il faut mettre il faut mettre tamit discours. non non non xam nga. à la waaw Bah, il est intelligent. Hein? Il, il, dit il faut mettre le discours dans son contexte. Maintenant, pourquoi tu refuses C'est le même discours que Sonko bi naan. Ah. Euh, boo xool génne Sénégal man dama gis bu nu mu dévoyé propos mi honnêtement. dama ko déglu. Mm-hmm. dama jël le temps déglu ko bi mu naan mm-hmm. boo génne Sénégal xool li xew ci dëkk. mu mm-hmm. xool président yi fi jaaree bu leen figé woon sax doo wax dara. dafa nii figé les présidents. waaw waaw communication gars yi dañuy dagg lu alors benn contexte ak ci benn kii la ko teg bu muy nam ci investiture sëñ bi sëñ bi waxu carrément bi sëñ bi waaw dama bëgg dégg toute communication communication politique. communication politique <laughs> mais man li ma wax li ma wax li ma wax nee naa la suñu nekkee ñun ay kilifa lañ mm-hmm. bëgg a jiite réew am na yoo xamante ni nañ ko wax loo suñu dixième coteau yi.